duma ko def ci doom adam yalla la koy wir xamna na ma wara def bu sama mbiri bop ba mu sotti yaay deg mais li lay xamal mooy président bi fi hmm <laughs> nañu nañu nañu def attention bu baax la nuyu di la siar baax di ñaan ci réew mi di ñaan ci addu bi jamm simna fogole serer fop na bi ñu seereer mais simna te joka tongo mondial te layataye o ɓiy nun o ndokkoor nun te fasiyene waxtaan fa ñu na ci ke anu yee ka njega na jamono ne waxtaan it fa nun na xam-xam waxtaan fa nun nu kena xewaana jamono ne yaam xadna ne ka jaxasu te ka suptu kono ku na rek mu o tega a caf waranoy an mu o reta waranoy an ku o jàq ka waranoy an kene solo lool tafa maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Mourtala Fall mu sëriñ Cheikh Modou Mbenda di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal gudd fan ak wér liggéey bi mu nam ma liggéeyal maamam mu eggale ko ak sagoom eggale ko ak kattan suñu borom man na ko yàlla na ko def incha allah waaw sëñ bi nuyoo bi rafet sëñ bi tey dama ne woon tey lool duñ si wax sax daa am ku la ku la ku lay tontu si si réseaux sociaux yi xam ndax baa ngi seen kanam njëkk waaye mu ngi am lu muy wax daal si vidéo bi nga def keroog mu siy tudd ba siy tudd ay waxi Wally Seck loolu lu mu demee sëñ bi. non loolu de bu amee xëy na lu luñ doon waxtaanee ma ak yow moo tax te man li may wax sax rek liggéey bi ñu nekk lépp lu ma ci gis loo xamante ne nii lu ko yàq la wala bokku ci. dina ci wax donte sama kàddu soriwul donte sama dayo soriwul sama kim laay lay lipulo lepp lo xamne ndax li bu xasse dugg ci internet bi ba ila yawmi din sey seut ak sey seutat yep dañ ko fi fek kon lepp lo ci wax wala nga ko ci jëf wala nga koy wax war nga sedd sey seut ëllëg war nga sedd say nawle war nga sedd ëllëg ñi lay déglu waye man wax yooyu bugguma ci won di wax sax ci lajul won du ma ci wax man bugguma di wax ay waaye su ma gisee loo xam ne njariñ la pour ñun ñëpp ñi nga xam ne ay sëriñ lañ di ñaan di faj njariñ la ak loo xam ne mën nañu su ma yaakaaree ne su ma ko waxee mu jubbanti ñu ba suñu liggéey bi tegu ci yoon dama koy wax waxuma ko pour xuloo waxuma xas kenn waxuma ko pour dara man li may wax moo nekk ci man li may wax itam ngir bëgg lu baax moo tax ma koy wax ngir am na loo xam ne kenn waru caa fekk ab sëriñ buy ñaan kenn waru caa gis buy ñaan waaw man taluma ay wax xuloo wala dàggasante wala du man du ma dox ci yooyu waaw man nee naa ab sëriñ moom ñàkk fayda weesuwul di toog ci internet di dàggasante wala di xuloo wala di nàngam sëriñ war naa am neneen nu mu war a lijjanti ay problème am lu dul wax ay yaa ma waxoon léeg wala yaa wax lee wala lii laa nekkuma ci yooyu waaw waaye daal li may xamal mooy fajkat ak sëriñu diine ak ki nga xam ne nii maanaam sëriñ la boo xam ne dafa jóg ngir nekk ab waaraatekat yaa ngi dégg wala nga nekk sëriñ boo xam ne jàngalekatub alxuraan nga wala nga nekk sëriñ boo xam ne tarxee moo la tax a jóg bokkiwut ak ñun lii ñuy def nii ñun ay simple taalibe lañ lii suñu liggéey lañu war koo def di ko def waaye dama jàpp ne da ngay dégg sëriñ bu naan man ci yàlla laa nekk wala sëriñ sàngam moom ma defar wala sëriñ sàngam moo ma defar te sëriñ booba ngay tuddawoo naan moo la defar ak sëriñ bu mu ci manti doon nekkul woon ci ay Waly Seck ak ay Thione Seck ak Youssou Ndour ci yàlla la nekkoon kon kooku lépp luy tilimal ab deram waroo caa nekk balaa maa bëgg dee ñu nekk ci télé bi naan Serigne Touba moo def ci man lii wala Serigne Saliou a def ci man lii wala diwa def ci man lii te ñooña ngay tuddoo am na yoo xam ne nekkuñu ca woon kon kooku yaakaar naa ne ab defaram du nekk ci ay caaxaan munoo nekk ci ay caaxaan nag bëgg a nekk ci dëgg loolu mënut a nekk te am na loo xam ne ay caaxaan la dafa am ñu ko moom kenn ku ci nekk da nga koy bàyyeeg moom kenn ku ci nekk am na cër suñu borom jox ci kaw suuf mu nekk ca jàpp na ne loolu mooy li gën gis nga ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci yàlla dañoo jàpp ne ñoom mooy ñoom li ñu nekk rek moo baax waaye am na ñu nekk ci safaan ñoom jàpp nañ ne ñoom li ñu nekk rek moo baax kenn ku ci sa ab dof ngay jàppe sa morom léegi nag boo bëggee jaxase ñaar yëpp yaw loo doon ah bu yàggee nga nekk xaj bu saydi xamoo foo jëm da ngay këlëng këlëng rek waaye bu la neexee tey ne sëriñ sàngam bu la neexee tey nga ne yàlla bu la neexee tey nga ne làmb ja wala toile sek wala lu kenn xamul wala Youssou Ndour wala nangam loolu àndul tafa àndul gon am na loo xam ne nit ki bu la yaakaaree di ñëw ci yow di la ñaanloo wala nit ki wékk la ay mbiram wala nit ki dénk la ay mbiram bu ko weer bu ko weer loolu moom ñaar dong la mën a doon xaw yi sutura wala mbubboo kooku wala puukare woo kooku yaa ngi dégg wala nga nekk sëriñ boo xam ne ab fenkat nga munoo téye sekkere loo yëg mu siiw loolu képp la mën a doon waaye ki ngay waxal moom du toog fenn laa lay wax nii wala mu toog fenn ba ne diwa may ñaanal man de musuma ko dégg wala diwa def ci man li nekk ci man am na loo xam ne mbiru suñu borom la waaye yow mi ngi ko séqal nga xam ne yow yaa waroon a nekk nitu sutura gi nga xam ne waroon naa ñëw sax naan la yaa ma defal nangam ngay nëbbatu ak di bañ mu siiw yow yaay mujj toog ci penc mi naan diw maa ko yor ak diw maa ko defal nangam loolu ay kàcc la du dëgg du dëgg parce que ki man dara wala ki mën a def dara man am na xeeti xam-xam yoo xam ne dama ko rus a wax ci internet nit ñi di ko dégg am na wax yoo xam ne rus naa koo wax te tey am na loo xamante ne nii tey jii nii bu nekkul woon doon gi ma doon murit waxuma la dara waaye sama kilifa laa rus yu bëree bëri muy sëñ Mourtala Fall mais amul lu sëriñ di man ci kaw suuf te mënuma ko yaakaar naa ne lépp lu sëriñ di def ci kaw suuf loo xam ne ci suñu liggéey bi la bokk mën naa ko lépp lu nit di wax ci loo xamante ni wax ju rëy la wala wax joo xam ne xam-xam la nga war koo teg ci taabal ji xam naa ko mais dafa am lu may rus dafa am lu may jomb am loo xam ne mbiru sutura la kenn du ko génne xam-xam kenn du génne lépp di nga wax nag leeral nit ki dégg la xam ne kii li muy wax lii la bu la yaakaaree wala mu gëm la mu ñëw ci yow bu la gëmut mu seeti sa moroom waaye am na loo xam ne ay kàcc dong la du dëgg ak wutal sa boppu pouvoir ak di mbubboo nit ak di wute nit daraja loolu képp la du leneen ñun ci réew mi lañ dëkk xam nañ li xew duñu ay dof yaa ngi dégg nit ki ñëw ci yow gëm la ñaan loola yaakaar la war laa wax ay yittam yëpp nga ko ciy jàppale yenn yi du yenn yi da nga koy rus a wax parce que loolu du dëgg ñaan affaire sutura la ñaan bu siiwee gis nga tafaa gis nga boo demoon cib sëriñ mu ñaana la affaire yi commencé dox rek koo gis ne kuy sëriñ sàngam moo may ñaanal laa illaa sëriñ boobu dafa aay ñaan gi day dem parce que ñaan jinne ak rawxaan la nit di ñaane loolu ab ñaankat soxla jinne ak rawxaan jinne buggul ku ko weer ndax jinne dafa ragal nit ni ni ñun ni ñu ragalee jinne yi noonu la ñu jinne yi ragale jinne bu demee bay siñanteeg yow benn pacte wala muy séq ak yow dara lam lay njëkk a demandé mooy sutura bul ma weer bul ma xaawi sama sutura léegi yow nan ngay jëflanteeg jinne ba pare wëlbatiku di jël jinne yooyu di xaawi seen sutura day dem jinne ji la lay ba jinne saa yoo ko nettalilee mu bala boo gisee ñi nga daan gis ñu naan dama gént nangam day xew nangam day xew loola du am jinne day ñëw déey la sekkere lu xam ne ñëwagul mu wax la ko nga xam ko mu war a nekk sa digganteeg sa bopp mu wanaat la ay tegtal yoo xam ne gis nga loolu mu la woon noonu boo teeyoon tuuti nga def li nga war a def wala nga sarax li nga war gis nga nit kooku nga géntoon wala nga gisoon day ñëw ba ci yàlla dina am lu mu leen boolee mu lii leen mu ñëw ci yow nga ñaanal ko aajoom faju wala mu am gàllankoor nga fexe ba gàllankoor boobu nga génne ko ci waaye boo ko waxee rek mooy waral jinne ji la waxoon loolu dalay wor dalay woon ginnaaw moo waral naan moo waral diw day daan wala maay defal diw nangam wala maay defal diw nangam loolu baaxut ci ñaan ñaankat yi koy def dañoo xamul ñaan xamuñu ñaan xamuñu luy ñaan xëy na dañuy réel seen grand bu rek wala sol seeni i neer toog di fen loolu ay kàcc la amul ci ñaan te na nga dem ci kilifa yu mag yi daan ñaan yépp wala koo xam ne nii leer na la leer ne la am na jinne ci lu wér ah? du la masa wax ne la am naa jinne wala jinne sàngam feeñu na ma wala jinne sàngam day wax ak man nangam da koy rus a wax su ko waxee rek la mu yor dem gon ñii toog ci télé bi naan ay damaa yoru jinne ak sama jinne yi wax nañ ma léegi sama jinne yi naa wala ay jinne laa yabal barke Seexul Xadim waxuñu dëgg ñoom ñëpp na ko ci dégg mu naan am naa jinne wax ko ci télé bi waxul dëgg day fen te ñoom ñi koy wax ne génnewu ma ci kenn nag génnewu ma ci kenn ñoom ñëpp laa wax wala damay yabal jinne yi ñu dem def nangam barke Serigne Touba Mbacke amuti jinne maa ngi jéggulu sax waruma wax di waat wala di wax nangam maa ngi ndax loolu man bëriwut lu ma ko def mais nañu bàyyi loolu te suturaal seen bopp suturaal nit ñi fii kuñ fi yàpp tey nit doo ko wutal ay noon am na nit ñoo xam ne liggéey nañ seen carrière ba egsi fi ñu egsi amuñoo kenn xaar yàlla amuñoo kenn noon mais di nga gis benn nit bu taxaw fële fexe fexe ba wutal nit ay noon ndax loolu baaxul nañ ko bàyyi yow miy wax am na loo séq kooku na yam sa diggante ak moom bu waree siiw na siiwee beneen côté bu dul maa ko defal nangam wala maa koy defal nangam tey am na ñoo xamante ne ni ñoo la ëpp xam-xam fuuf ëpp la baatin yorloo yorul su leen neexoon nga wax loolu ba pare ñu toog fañ toog yàqu ko te doo ci man dara la ngay mujje mooy waa toog di lay ndax gis nga fii ku wax ne diw day daan loola mbër mooma ñam ñu daan ko mu wëlbatiku day mujj toog ci kanamu sénégalais di lay naan lii la xew ak nee la demee nee la demee xanaa bi nga xamee ne noonu lay demee waroo koo wax sëñ bi nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg yooyu baaxut raggante ginnaaw bi ci boppam la ñu war a bàyyi te loolu lépp li tax ñu koy def koomum àdduna kese moo tax ñu koy def nga gis ay sëriñ yuy lëkkaloo fii di wax naka su wala nga gis sëriñ bu def tojaangeem ba mu neex ko wëlbatiku naan ay sëriñ yi dañ maa bañ ak seen xol yi dañoo bon ak seen xol yi nag seen xol yi bonuñu soxorewuñ la lijjantewuñu kenn xam nga ci lan lañ nekk mooy xam-xam bi nga xam ne seen xam-xam la muy xam-xam boo xam ne lu wér la ci réew mi lañ buggut ku ko yàq kese ndax mbir boo ci nekkee am lu ko yàq da ngay taxaw nga wax ne lii da koy yàq bu ëllëgee nit ñi xam ne yow waxoon nga lii lii bokku ci na nit ñi vérifier li may wax nii ak ñi nga xam ne gëm nañ sëriñ di dem ci sëriñ ci daan ñaanu ji ndax daa nga dem ci sëriñ man sëriñ sax li gën a wér mooy boo demee ci sëriñ sax mu naan la diw maa ko ñaan wala nangam sax ba ko fa nde xam ne ëllëg noonu la lay weere loolu du dëgg nañ ko ba waaw waaw sëñ bi kon ñi nga xamante ni tey day nekk naan comme diw diw diw day dee tey wala day dund tey euh, nekk si politicien yi di fen di wax kon ñooñu doo leen wax ndax temps par am na benn sëriñ bu génn am benn benn kilifa bu bu génnaat la mu taxaw mu ne ma taxaw taxaw woon na ni wax ni kooku lay loolu ñeme yàlla la ndax kenn ku ñu nekk sa baay dee na mm. sa yaay dee na wala sa rakki baay dee wala sa rakki bàjjan te waxoo ko ca kaw waxoo ko wala yëgoo ko da nga am nit mu dee ku la jege lool te doo ko wax. da koo yëgut léegi dañuy xool nit ku siiw wala am na loo xam ne sax ñeen na ñi dañuy nekk sëriñ yu am connaissance dégg ne diw feebar na wala diw am na lu ko dal nett li maanaam waxataan yoo xam ne waxtaanu biir néeg la yooyu la ñuy ñëw analyser ko teg ko ci kaw taabal ji wane ne maanaam lii day am fekk du baatin ay technique la yoo xam ne ñoom ñoo koy def ci seen biir beneen ba ca tege mooy réew mu toll ne Sénégal 15 millions d'habitants xaw ma 16 millions chaque jour dina am ku dee am na fi am juróom-ñett fukki am na ñu fi am juróom-ñeent fukki am na ñu fi mënul ñàkk kenn dee te Sénégal fii dee dafiy am gon boo nee diw dina dee ak du dee yow bu xasee dee ban pouvoir nga ci am te am na ñoo xamante ni boo xasee wax loolu dañ lay weddi parce que dañuy xam ne yow mii xam-xam nekkul ci yow gon diw day dee wala nangam day xew ci am réew wala nangam yooyu ay caaxaan la nañ ko bàyyi amul njariñ amul njariñ parce que wax ko yow bu amee ban pouvoir la def ci yow taxul ki la wër tëggam du la gëm taxul nga lekk lu dul te kooku noonu ngay wax loolu am na ay waajur am na ay mbokk am na ay soppe am na ay xarit am na ñu ko bëgg te pourtant soo ko waxee di nga gaañ kenn nit te pourtant man ki yor njariñ war a jariñ ay doomu aadama wala nga nekk pour de voix war a wax adduna yëpp dégg war ngaa mën a sàmm say kàddu ba yow doo lor nit loolu nañ ko moytu loolu baaxul tafa du dëgg ku ko wax ku ne rek am na ñoo xam ne nag jinne mën na leen a woon wala rawxaan woon leen muy bu leer ndax rawxaan te ak jinne ci ay conditions la ñuy dox tey nit ki maanaam ma wax benn affaire rek mooy jinne nga ne yow jullit nga da nga yor tur yàlla liggéey ko ba suñu borom boole la ak ay jinne wala mu boole ak rawxaan rawxaan yooyu malaaka moo leen di conditionné léegi malaaka moo leen doon leen conditionné ci leer lay dox yow nga ñëw bëgg a dox ci lëndëm boole kook leer di ko wax jaami jaami yàlla yi am na loo xam ne xajul ci émission mais mën naa la koo leeral ba mu leer yaa ngi mais loolu nga bëgg a boole est-ce que bokk na est-ce que jinne jooju nga bëgg a weer mu wax la dara ne la lii dina xew est-ce que bëgg na nga weer ko dalay ba dalay ba dootul ànd yow motax ñu bëri ngay gis fi ñuy dox widd lañuy doxé yaakar na ñu ngi fi mais nekkuñu fi gis nga alal du ñaan nit ki man no mëna def manam alal yoré milliards sax da ngay dégg sëriñ bu tok naan man li nit ñi am yépp amna ko amna auto amna kër légui loolu lan mo ci intéressé nit ñi ak yow am auto am kër lan la joté ak xam-xam lan la joté ak ñaan ah auto nun auto ay pexé ko joxé xaaliss pexé ko joxé kenn man na am ay milliards te tiriande nit lélé nga gis nit ku tiriande yor ay milliards léeg-léeg nga gis nit ku sàcc yor ay milliards léegi yow sëriñ bi yow yow mi wax loolu lan moo ñu wóor ndax xaalis boobu da nga koo triané wala da nga dóor wala da nga sàcc wala da nga koo def nan wala da def nan lan moo ci suñu yoon lan moo ci yoonu ñi war a ñëw ci yow ñaan lu ñu war a ñëw ci yow ñaan lu soxla la ñuy wut ci soxla boobu na faju moo leen gën a intéressé que am na lii wala am naa kenn ku ci nekk fa nga nekk la ngay dunde yow yaa ko xam mais teg ci taabal ji xam ak lu jariñ ñi moo gën am naa oto wala li nit ñi am am naa ko duma wax lu du dëgg wala nangam te loolu ay kàcc la nañ ko bàyyi baaxul waaw waaw xam nga àdduna sëñ bi yàlla mooy rayee yàlla moo ñu sàkk yàlla mooy rayaate nattu yàlla moo koy teg ab jaamam yaa ngi dégg mbir mu ci nekk bu amee ba bakkan rot ca la ñuy wax mooy ñaanal ñooña yàlla suñu borom boole leen ak malaakam yërmande te yërëm leen jéggal leen seeni rëcc-rëcc yaa ngi dégg loolu lañ ci war a wax loolu lañ ci war a taxawe mais suñu borom moom képp koo xamante ne nii rek sa àpp jot na rek fa nga war a faatoo doo ko weesu kon loolu amul luñ cay wax bu dee kantaali xew ci réew mi mooy coow li bëri yii nit ñi di wax dangay gis maanaam fi ma ciy waxee mooy yooyu sax man Tapha bugguma ci woon di wax da gis mbir xew coow li bëri ku nekk indi xam-xam analyse am teg ku nekk indi waxam teg te nit kooka di wax la wax bànneexu bàkkanam képp moo tax muy wax waaye tegu ko ci xam ak xool mbooloo mi fa ñu ëppee ñuy waxee foofu yaa ngi dégg loolu moo ci bëri ci réew mi moo tax kenn xamatul looy wax ak looy def ak loo war a bàyyi yaa ngi dégg man dëgg moo ma ñoro ak wax loo xam ne leer na ma waaye nangam am na nangam moo waral mu am te bakkan rot te nga nekk ak jullit te xam ne suñu borom moo la sàkk moo sàkk ko suñu borom moom moo yabal malaaka mu jël si la yow moo jël ko yaakaar naa boo taxawee naan ay sacrifice la ak loola la yaakaar naa ne yaa ngi bokkaale ak yàlla te loolu jullit bu nekk war na koo moytu waaw man nag li may digal ñi nga xamante ni ay xale lañ comme nekk suma ay morom wala ñu nekk ñoo xam ne sañ naa leen a digal nañu moytu lu bëri te nit dafa war a fonk boppam nit dafa war a am gàllaaj nit dafa war a am kaaraange sabablu ndax suñu borom bi mu ñu sàkkee ba pare kenn ku ci nekk dalaa bàyyi ak sa xel bu dee mbiru àdduna yii ñun ñoo ko war a wutal suñu bopp ñun ñoo ko war a doxal suñu bopp ñun ñoo ko war a defal kenn ku ci nekk war ngaa mën a contrôler sa bopp ba lu ci nekk rek nga xam na nga koy saytoo yaa ngi te ñu moytu politiciens yi ndax ñoom li ñuy xëccu rek moo leen ñor kese leneen ñoru leen nuñ ko amee baax na te luñ mën a def pour am ko dañ koy def waaye nag li ma lay xamal mooy nit ki ci sooy dem ci mbir wax naa ko fii xëy na nag wax jooju dégguñu ko waaye ba naa ba di doog di jub si ay jamono euh, neewoon naa leen nit bu ko yàlla jiitalee danga koy jox cër bi ko yàlla jox danga nga koy moytu da nga koy wormaal gis nga lii ñuy tëll tëll nii di wax réew mi ku ko warut jël doo ko jël ku ko warut jël doo ko jël ak defal lu la neex ak amal lu la neex doo ko jël suñu borom moo koy joxe yaa ngi dégg beneen ba mooy président bi fi nekk comme munuñ ko fee jëlee te élection amul na nañu nekk ci dëgg nekk ci li ñu war a nekk kenn ku ci nekk nekk ca la nga war a nekk ba élection jot ñu def la ñu war a def kenn koo xam ne war nga fee toog di nga fi toog ku fi war a toog it boo doon dem ci kaw asamaan di ñëw itam mënoo fee def dara lu tax nga jël réew mi kon nañu wormaalante te dimbalante suñu biir te bàyyi wax yu ñaaw yi ñuy waxante mel ne dëkkeewuñu réew mi te man li ma gën a jaaxal te gën maa naqare da ngay gis ñaari nit ñu saagante wala ñaari nit ñu waxante lu ñaaw suba boo gisee fee gis leen ñu dajee di di waxtaan di kaf di ree wala suba nga gis leen ñu dajee fee di wax di ree léegi nag ñu jël njabootu jàmbur gi ak doomu jàmbur yi di leen rayloog di leen def lu nekk te ñoom la ñuy def dara ñëru leen ci seen maanaam ñi nga gis ñuy wax di téel téel seen mbiru bopp leen ñor kese ku ci naan damaa bëgg defar réew mi dama def sa bopp nga bëgg a defaral defaraloo réew mi ndax am na yu ñu fi mën a defar te defaruñ ko gisoo ci kenn koo xam ne defal na fi benn gone loo xamante ni war na cee mën a taxaw jàpp ci dimbale ay waajuram wala nangam ak yeneen ak yeneen ak yeneen nañu moytu teñ moytu ñuy nekk fii nii di xëccu réew mi xale yi nga xam ne dañoo war a am avenir ëllëg dimbale seeni waajur nañu nekk ci li ñu war a nekk te bàyyi politiciens yi ñu topp di lambar lambari yaa ngi dégg loolu mooy dëgg kenn ku ci nekk am na loo war a mën a def ba war a mën a am sa responsabilité bopp ba bu élection jotee nga xool ku war a fal wala ku la neex nga fal ko te bàyyi seen yii ñuy def yii amul njariñ amul njariñ amul leen benn intérêt bu mu leen di jural ëllëg waaw. waaw sëñ bi loolu mystiquement tey mystiquement tey yow loo si gis si ñaari cas yi que muy keneen ki que muy keneen mystiquement tey loo si gis. waaw xam nga man mystiquement. bëgg naa ci loolu xam naa ko. am naa ci itam lu leer te xam naa xam-xam bu ñuul xam naa lu nekk xam naa mystique li mu mën a def mm-hmm. mais man chaque jour. damay bëgg su may wax may moytu yenn yi du ragal hmm? du dara lu may moytu ndax man ragaluma ku lebih bind ci kaw suuf ragaluma la ndax man yaakaaruma kenn ci sama bopp yàlla ya yaakaar te kenn ku mën a taxaw fii ci réew mi ne mas nama maa taxaw ci sa bureau ñaan wala mas nala laa dara looy sama yite bok amul ben nit bu mën a taxaw itam ci réew mi ne mas nala laa demandé loo sama yite bopp lo amul man sama liggéey telu tal lenn loo xamante ne nii lu lu may sàkku ji la ngir sama bopp du ma ko def ci doomu aadama yàlla laa koy wiir xam naa na ma war a def bu dee samay mbiri bopp ba mu sotti yaa ngi dégg mais li ma lay xamal mooy président bii fi toog mm-hmm. <laughs> nañu nañu nañu def attention bu baax yaa waxuma la moom de moom ci jëm boppam waxuma la moom moom mën naa bañ sax yëg waaye am na ko couvrir ñoo xamante ne nii du ñu ay caaxaan du ñu ay niti caaxaan te damay bañ a tudd maanaam lu ci ne sutura la mais daal li ma lay xamal mooy képp koo xamante ne yaa ngi dal ci kawam yaa ngi dégg wala yaa ngi wax ci moom wala yaa ngi jël di ko affronter maanaam nanga taxawaaye say responsabilité yu ma sëkk yoo xam ne yow li leer na la fi ngay teg sa tànk wér na loolu moom maa ngi koy wax mais am na nag yoo xam ne man duma ci sori du ma ci wax waaye li ma la mën a xamal mooy nit ñi lépp looy dugg na nekk loo xam xale yi itam kenn ku ci nekk lépp buñ la wax loo loo xamante ne nii yow wóor na la boo wéetee amoo ci benn responsabilité pour sa bopp ndax nit bala nga dugg ci mbir buñ nee diw jàmbaar la na nga toogaale dara wala booy wane ak njàmbaar ci kaw nit ñi di ko di dégg wala ngay taxaw di fëgg dënn wala ngay taxaw di man maay lii na nga wéet mu wóor la boo wéetee tëdd sa néeg nga xam man fépp lépp lu ma wax assumé naa samay responsabilité lépp lu may song nit ki wala di attaqué nit ki lu ci man di xew ëllëg man na maa gàddu samay responsabilité mais nekk koo xam ne wóor na leen riir mi day jóg rek nga ne waaw président lii wala wala nga ne sonko lii wala nga ne nangam nangam te yow li ngay wax nit ñee taxaw nga wax mais boo tëjoo sa néeg xam nga ne yow lu la fa man di fekk lu la fa man di attaqué wuy sama nday wala daw nga ciy xalaat na nga xoolaat bu baax li ngay def su la wóoree nag boo fëggee sa dënn taxaw attaqué nit wala nga dal ci kawam lu man di xew man ngaa jël say responsabilité lu la neex man ngaa def waaw waaye daal li wax mooy nañu moytu nañu moytu te kenn ku ci nekk boo amee liggéey booy def nga dellu ca toog liggéey sa liggéey soo amee looy defi nga defi ko soo amee loo mën a jàppale sa ay mbokk wala sa ay waajur wala sa ay am di jàmm nga nekk ca yaa ngi dégg leneen la ca des gis nga ñii nii ngay gis nii moo xam comme ci man di doon ak ñëpp ba ci président ba ak ñëpp a ci am dëgg la de nit ñi mën nañ ci am de mais ñoom ñoo ci ëppale te ñoom seen bopp lañ fi nekkal nekkaluñ fi keneen kon nit ñi nañu yeewu nañu yeewu bàyyi seen ñuy def waaw loolu daal laa am lu ma ciy wax <laughs> waaw. sëñ bi tàggatoo. di sant yàlla rek. yow <laughs> nekk nga di ma laaj sax ba waxuñu ci xam-xam waxuñu ci li <laughs> ñu war a wax xam nga ne man bugguma euh, di euh. dugg ci yenn débat yu kii ma ci duggee rek damay xaawaabal te man su ma sañoon ci xam-xam rek la ñuy wax daal mm. waaw waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci réew mi jàmm lépp lu ñu wax nit ki gis ci boppam ñu ngi wax ne lu baax lañ ci jublu yaa ngi dégg lu bax lañ ci jublu ak bëgg réew mi yëpp nekk ci jàmm ak bëgg nit ñi nekk benn tey xool lu rafet ñu di ko wax gis nga nit man nga toog sa néeg yor sa téléphone wax sa lu la neex ci nit mais sàmmal sa diggante ak kooku sàmm sa diggante ak sa njaboot sàmm ëllëg gis nga réew mi changé wut asamaan si ñu daan tiim moo ñuy tiim suuf si ñuy dox ci lañ daan jox kon jikko yi ñoo changé nañu bàyyi li ñuy def léeg nga gis nit koo xam ne day toog ci internet bi saaga nit saagawu ko ngir dara lu dul kooku am na am koom wala bëgg naa xamante ak moom ngir bëgg kooku woo ko wax ak moom wala am ak moom kóllëre wala nga gis ko toog fële di tàgg nit la muy wax dara ñuuru ko ci dafa bëgg am ak kooku ay contact yooyu nañ ko moytu nit ñi dofuñu nit ñi xam nañ lu nekk mais man amul lenn loo xamante nii jaral na ma ci àdduna man may wax di neexal nit wala may wax ci nit loo xamante nii du dëgg du ma ko def du ma wax nit yaa baax baaxoo du ko def du ma tàgg nit ki te te defaluma dara nit ñi nañu nekk ci njub te bàyyi seen yii ñuy def loolu mooy àdduna maa ngi jégalu ñëpp di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan yàlla suñu boroom mi nga xamante nii mooy boroom kàttan mu dëppale xol yi ba def ci réew mi jàmm ñëpp nekk jàmm ñëpp nekk ci jàmm loolu daal la ñuy ñaan ci kàttanu yàlla waaw